bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi din amma assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko yàlla jàmm ak mucc moom ak ay waa këram ak ay àndandooram ak mboolem ku topp ci yiwam ba keroog bés penc ginnaaw loolu dañuy continuer ci suñu dernier thème bi nga xam ne mooy thème bu mujj bi muy nan lañuy def ba dund suñu dundinu sëy boo xam ne bu mucc ayib lay doon ñu war cee ànd ak suñu ay ñaari yaay di Seyda Tata Ndeye Fat Fall ak Seyda Aïcha Mbaye muy ñoo xam ne xam naa ne miin ngeen leen ci thème yu mel noonu thème yu ñu baaxoo di def la ba tax na ñu ngi def lu dul njëkkee ak Seyda Tata Ndeye Fat Fall seydan day Fat Fall mu ngi juddo fi Dakar fi la yaro mu ngi dëkk gar don jangale kat ak kat ci école shamsuddin mu ngi jangale rawda ba sanawiya doon tamit soxna bo xamne di yëngu ci mbirum dawa surtout ci côté xarakatu fallah mom moy ñeuk ibi tembi kon nak diko wax Seyda fal tafadali mashkura bismillahirrahmanirrahim wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baada asalaamu aleykum wa rahmatullahi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu àq ci dérangement bi ak déplacement bi di leen balu àq tamit ci weeru koor bi di jiital si nuyoo bi suñu yaay ji toog suñu wet mu di ñu gunge si lépp lu mel nii ñu di ko tiitaroo ko ñaanal jàmm yàlla ak yërmaandeem ak barkeem di nuyu suñu sponsor yi nga xam ne ñoo ànd ak ñun ci bis bi si sa xoo xabatu sawda ak euh, maliku couture nga xam ne moo ñëwal sama doomi góor yi macha allah ak euh, ñi nga xam ne ñoo ñëwal si euh, hijab mastour ñi ngi leen di ñaanal yàlla di kontaan si ànd bi ñu ànd ak ñun ci suñu journée bi di bañ a guddal rek di nuyu daal mboolem ku fi toog ñu ngi lay nuyu di gërëm tamit suñu doom yi njëkk def waxtaan macha allah yaakaar naa Aïcha benn yoon laa ko woo jokkoo ak moom ne ko du ñu bëgg nga ñëw defal ñu waxtaan tegu si baat sama nawle bii toog Aïcha Mbaye kazalika Roqee Souleymane kazalika naka noonu kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm ci te ñoom ñëpp ay kilifa lañ macha allah kon nit ñi ko yombalee nii ñëw defal ñu ko wax dëgg yàlla amu si amuñu si ñoom fay yàlla na leen yàlla fay yiw di gërëm suñu ñaari doom yi fi njëkk exposé yaakaar naa tey wax nañ ñu lu bari. sama kelas bi nga xamne dañu bëgg yap mom moom xalé xale ñi ma àndal ree nañ ma ndax néna na ñetti yoon lañ ko war a ci semaine bi dina metti waaye dinañ ko jëm incha allah yàlla na leen yalla fay di gërëm Aïcha Ñing sage-femme bi gis nga nim ñu waxé ni ñu wara a suñu kanam ak yépp yalla na leen yalla fay yiw tay nak damay wax ne journée ñaareel li la d'accord ngeen ah d'accord ngeen sama sama sama yaay jaal ma ngi lay nuyu mère jaal di la ziar bu baax xel day fattu di kontaan su ma la gisee télé nga muur rek damay bëgg macha allah tey moom Aïssa Aïssa Aboubacar Sall ñaareel la def na fi waxtaan bu am solo Aïcha ñi ngi chance fa am def na ci waxtaan bu am solo Aïcha Mbaye mii mooy ñaareelu euh, docteur Lo macha allah man maay ñaareelu sang bi Oustaz Omar Ndiaye kon xanaa tey journée ñaareel yi la loolu la yàlla dogal macha allah mu amin loolu la yàlla dogal. tey nag soxna yi ñun ñu ngi ñëw bu leen indi suñu exposé si lan ci biir kër gi maanaam sëy bi xam ngeen ni soxna yi fi jiitu wax nañu ci xijaab bi maanaam muuraay bi mais toujours damay wax ne muuraay bi dafa am lu mu àndal mooy sëy bi ci biir kër gi bu ñu yaakaar ni rek jaamu yàlla bi mooy muuraay bi bu ñu yaakaar ni rek jaamu yàlla bi mooy julli bi ak koor gi sama doom yi ñëw nañ ci sànq mais man boo gisee may incité si sëy bi yàlla daf ñu si digg àjjana man looloo tax ma sonn ci te damay wax ni neex dagan la dañ ciy jaamu yàlla te dafa neex macha allah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ayuma imraatin maatat wa zawjuha anha raadin daxalatil janna jigéen boo xam ne génn nga àdduna sa borom kër gërëm la da dugg àjjana mais nag du nekk gërëmu senegal de ku dee baax day fekk nga liggéey ko ci biir kër gi day fekk nga sonn ci biir kër gi te ñun damay wax ne ñun jigéen tey li ñu gën a tële mooy sëy mën nañoo muuru mu jot mën nañoo julli yàgg ci lool mën nañoo joxe asaka buñ ko amee mën nañoo jaamu yàlla mboolem façon jaamu yàlla yi mais sëy bi dañ koo tële ndax la ñu tële ko mooy base bi ñuy yebee bu ñuy sëy sa naw la ngay fekki gënu la ndey gënu la bàyyi lol buñ ko defé suñu bop rek sey bi fay jafe ci ñun meñ la kan lañuy fekk ci bir kër gi sang sang bo xamne buñ ko tarbiyo dem aljana sang bo xamne dañoo wara top ci ay ndigalam fekk mu ngi digal lu neex borom bi subhanahu wa taala sang bo xamne dañoo wara bayyi ay terem soxna yi loolu dañ ko neewal doole yaakaar ni dafa ñak solo te moy li ëpp solo nak ci jigen ginaabu mu toppee yalla ndax xam ngeen ni soxna dalukaay la wa min ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwaajan li taskunu ilayha la yàlla wax bokk na ci kéemtaanam yi moom yàlla subhaanahu wa taala yéen góor ñi mu sàkkal leen ay soxna yoo xam ni du ñu ay rab du ñu ay malaaka du ñu ay jinne mais ci yéen lañu bàyyi ko ngir lan ngeen dal ci moom waaye yow ki la war a dalal moom kon kooku war naa am nu mu mel ki la war a dalal war naa am ay comportement yoo xam ni daf koy comporté wu tey du ma dugg ci néeg bi tey moom du ñu dugg ci néeg bi dañuy yem rek ci ëtt bi ak comportement bi incha allah xam ngeen ni soxna yi kër dalluwaay la kër dafa war a nekk lu neex kër dafa war a nekk loo xam ni mooy noppalukaayu góor ndax lan jigéen luñ ñun jigéen lan la ñu sant na fii na buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jaahiliyatil ula sax leen seen biir kër yi ngir mun a toppatoo xale yi toppatoo njaboot gi toppatoo borom kër gi bu wàccee borom kër gi lan lañ ko sant su xëyee na dem génn dem uti ñëw indi si kër gi yow sant ñu la liggéey de xëy na nag ñun suñuy bëgg-bëgg moo tax ñuy génn di liggéey ñu bari si ñun boobu wala yeneen moo tax ñuy génn di liggéey mais li ñu santoon ñun dañoo war a dal noppalu te ndax kii dalalaate dafa war a dal amoo benn coono boo xam ne war na la ci biti ndax ku góor ki moom lañu yebal mu génn ci bitti lépp luy teraanga lépp luy lu baax moom moo ko war indi ci biir kër gi kon kooku lool kooku lool moo ko war kooku nag na yi bu fekkee mi ngi def li ko war ba génn suba teel dem liggéey ah kooku bu ñëwee war na fekk ku koy dalal ci biir kër gi waaye li may wax ma al ñu bari su ngi xamuñu sëy bi wala fonkuñu ko sa boroom kër day xëy liggéeyi nga nekk ci kër gi wala nga génn. mu wàcc ñëw fekk la ak yére yi nga doon toggee añ moom la lay fekke nga nekk ak moom ci biir kër gi toog di ko xaar te xam ne eh, góor dama leen di wax ni góor li tax ñu sonn dañ leen ni bu ngeen génnee ci biti bu leen xool jigéenu jàmbur wa qul lil muminina yaxuddu min absaarihim wa yaxfazu furujahum yàlla mu ne waxal jullit ñu góor ñi bu ñu génnee donte kon digal nañ ko jigéen ñi waaye góor ñi ñoo gën a sonn bu ñu xool góor jigéenu jàmbur nañuy sajj seeni bët damay faral di wax ni boo génnee doo gis bu rafet soo duggee ci biir kër gi doo gis bu rafet kon ñoom moom euh, euh, li ñuy wax chiqaa euh, dikkal na leen maanaam toroxtaange kon jigéen war naa fexe ba kooku nga xam ne dafay génn di uti di am su ñëwee li ñuy njëkk a mooy mu xam nan la koy teeroo ñu bari si ñun mënuñoo teeru am na ci sax sama mbokk aawee yoo xam ni seen borom kër bu ñu jógee si liggéeyukaay bi ñëw du leen teral déranger jug fi ñu toog léeg-léeg sax est-ce que fay nuyoo dinañ ko def kon jigéen góor bu liggéeyee ba ñëw war naa fekk nga mel noo xam ne macha allah nga sol lu rafet sol lu set su fekkee kër gi ay góoru jàmbur dañ fi nekk comme ni ko soxna roqee waxee nga jël sa kol bu mag teg sa kaw nga xam ne kanam gi mooy feeñ ak loxo yi su ñëwee ba dugg ci biir nga dindi sa kol teg ko fee fekk yow sol nga set man tey baaj mu doon araaba ku wax sànq bii génn man moom laa bëgg da fekk nga def sa tay bu baax wala nga def sa marinière bu baax wala yaa xam nga sol sa rafet daal di koy nuyu xam ngeen nuyoo moom miy ñëw day nuyoo waaye yow mi koy fekkaat ci biir néeg bi da ngay nuyoo ndax nuyoo baatu jàmm la asalaamaaleykum jàmm yàlla nekk ci yéen te xam ngeen ni jàmm bu fekkee dañ koy siiwal lu bari suñu diggante dañuy gën a bëggante naa say bëggante la soo ñëwee nga nuyu ko li ñuy wax nag soxna yi du jàngale ndax xam naa yéen ma xam dafa fekk ne thème bi moo demee noonu te dañoo euh, bokk si ñi nga xam ne yàlla daf ñoo digal ñuy fàttali wa dakir in nafaati zikra dañuy fàttali rek soo nuyoo sa boroom kër nga dalal ko laaj ko liggéeyukaay bi mbaa dajoo ay coono foofu mbaa mettiwul yéena ma gën a xam ne ñuy dalalee borom kër ba coonaam wàcc gis nga wax bu neex bi nga koy wax noonu soo yéexee indi ndox sax du mer parce que du mar parce que kàddu gu neex sarax la al kalimatu tayyiba sadaqa kàddu bu neex sarax la ni ngay waxee moom wax bu neex dalal ko ci biir kër gi ni mu sonnee ñëw daf koy kontaanloo ba nga xam ni même boo indiwul ndox du soxla ndox bu sedd même bu ventilateur bi uppul du tàng waaye xam nga ni bari na góor buy wàcc ñëw ci këram tàng jër te fekk na jëf dafa sedd wala mu mar lool fekk sax naan na ci yoon bi ndax kàddu yi nga xam ne moo koy teeru comportement col gi nga xam ne moom lay fekk ci biir kër gi niñ koy teeroo xetu waañ bi nga xam ne moom moo koy teeru kon teeru dañ koo war a xam nañ koy defee ni ñuy teeroo mooy lan sañse ba jekk jigéen damay wax ni échec la sa borom kër ñëw fekk la ngay kurkuri di liggéey takk sa sër rek jug nga ndam fóot nekk si waañ bi suba ba ngoon da ngay organiser wu balaa muy ñëw fekk lépp pare na nga sangu ba set xeeñ lu neex teeru ko ak say kàddu yu neex dalal ko soo paree nga jox ko mu lekk ba suur waaye tey ñun añu deux heures rek am na góor ñoo xam ne du ñu añ seen kër ñi nga xam ne dañuy teel a wàcc war a gont duñ fa añee am ñoo xam ne ngoon la ñuy ñëw ceeb bu sedd lañ leen di tàngalal ndeysaan dañoo joxe dépense bi de même bu fekkente ni kër gi ñëpp a ngi fi moom mu liggéey moom muy joxe dépense bi nañ ko utal lu tàng lu muy lekk ngoon bañ a tàngal ceeb bi rek di ko jox kon góor danga koy dalal ci lan li muy lekk su ñëwee nga jox ko lu neex bu dee ngoon ba ngoon lay wàcc nga defar ko loo xamante ni lekku ngoon la ndax man damay wax ni ceeb du lekk ngoon ceeb du lekk ngoon lekk ngoon mën naa nekk ay salaat ay jënd ñu lakk comme ni ngeen ko xamee mus naa leen ko waxal lakk sa jën dëbb sa tuuti naanaa sa tuuti xorom léegi sax loolu aju a ah, jaratul ñu koy def ndax Malick Couture kii bi nga xam ni bi nga xam ne na leen ko léegi man essayé naa ko ah kii kon si sa xabatu sawda indil nañu benn kii boo xam ne produit boo xam ni yooyu ñuy wax yëpp daf ko ci def ci biir man essayé naa ko produit bi am na am na kaani salaat am na kaani xeeñ am na kii ni euh, nga koy waxee xorom poole ci biir produit bi am na crevette ak yu bari yoo xamante ni moom moo ko composé yooyu rek ngay jël daal di def ci sa jën lakk doo si def dawlin sànq dégg nga boo bëggee sa borom kër wér doo ko jox diwlin bu bari diwlin bu bari dafay wéradil doomu aadama surtout góor baaxul ci moom kon léegi yaakaar naa noppalu nañ si dëbb ay jinjeer ak ay naanaak yooyu di ko mariner jën bi lépp defal nañu ko si benn sachet bu ñëwee ñu defar ko ba mu baax jox ko mu lekk ba suur guddi li si gën a baax ci góor mu koy naan mooy meew meew bu sedd sedd bu yem soo ko lakkalee jën nga defal ko meew bu sedd wala nga def sa jus jinjeer boo xam ne du du foor ba mu ëpp ndax yéena ma gën a xam jinjeer li muy liggéey ku ci sonn rek sa xol sedd waaye ku ci moom léeg-léeg sa nga am defet te xam nga ñun ñaari dañu fonk ay duñu bëgg defet kon lek gogu bu ñëwé dañ ci farlu jox ko mu lek ba sour buñu ñu ak mom wax bu neex buñu sañsé ba jekk jox ko mu lek ba sour suñu paré ci lolu ñu préparer ko fu muy noppaloo tay ji bo gisé ñu bari damay uti kër gu may lu ko waral mënoo noppalu sa kër so wàccee yàq ci bir neeg bi ciowli donte kon ay jabor lañu waaye mën na nañoo organiser suñu bopp parce que dafa am ñetti heure yoo xam ne góor ñi ñoo ko moom mën nañ koo wax parce que alxuraan daf ko jàngale sa salaasu awraat ñetti heure yoo xam ni góor ñi ñoo ko moom bi su njëkk mooy suñu jullee tisbaar ba pare xam nga góor bu jullee tisbaar ba pare noppalu liggéey na wàcc mën naa am mu ngi gont wala gontagul kooku dafay soxla boppam dafay bëgg a noppalu foofu war naa fekk lépp pare mu tëdd noppalu yàlla boo tëdd si wetam nag di ko wayal wala nga di ko waxal wax ju neex day gën a am sawarte pour jóg dem liggéeyiwaat day gën a kontaan buy jóg di liggéeyiwaat waaye ñun instant boobu mi ngi ñuy fekk ci lan ñu organiser suñu liggéey sangooguñu wala xale yaa ngi yuuxoo fii néeg bi désordonné na ak yu mel noonu kon góor dañ koy dalal heure boobu heure noppalu la beneen heure bi mooy lan suñu jullee gee ba pare fekk lal nga salal ba mu baax wax naa duma dugg ci néeg bi tey damay yem ci ëtt bi fekk nga lal nga salal ba mu baax defar li ngay defar moom julli ji nagee ñëw na war naa fekk foofu yow pare nga toog di ko xaar waaye ñu bari si ñun xam nga foofu lan lañ fay def seetaan télé seetaan télé rek sëñ bi léeg-léeg mu toog ba sonn jël journal te nga góor ñi ñi ma si xam boog wala ñu ëpp si ñoom dañuy bëgg jot seen bopp bëgg teel a tëdd ñu si bari si ñoom parce que dañuy sonn dañuy yendu ci journée boo xam ne bu metti lay doon mais ñun comme jigen ñun suñu énergie dafa melni mo gëna bari duñu son lu bari ñun lan lañuy préférer fofu dem sétani télé wala ñu tok ci ëtt ba di waxtaan ne heure tëdd jotagul te xam nga ban lan moy heure tëdd ci islam moy ginaaw julli ge motax tax reer bi warna paré timis buñu jullé jullee ba paré warna naa fekk yow li nga def lépp paré nga dem tëdd parce que julli dafa wara a teel comme ni ko yent sallallahu alayhi wasallam jangalé ndax lan wóor ñoo tëdd rek melni ay mbam yu dé bala fajar war nañu juk lu mu neew neew bu dee ñaari ñu julli ko waaye boo toggee ba minuit une heure deux heures nga bëgg a bëggal sa borom kër bëgg a nelaw soo moytuwul di nga biddanti kon pour ñu bëggal borom kër yi dañuy teel a tëdd te pour ñu teel tëdd dañuy teel a pare beneen bi mooy suñu jullee fajar ba pare mooy saa sa awraat yi nga xam ne moom la yàlla wax ci alquran xam nga góor bu jullijee fajar ba ñëw day bëgg tëddaat su ko defee comme ñun yàlla may nañu ñun jigéen ñu ëpp si ñun walla jigéen sax si bi maanaa dem jàkk waru ko moom mën naa julli ci biir këram heure boobu muy génn di dem jàkka ji nga fëggaat sa lal daal daalaat cuuraay bi bañ koo def muy saxaar defaraat néeg bi ba nga xam ne day mel ni bi muy door a tëdd ni mu meloon moom su jógee jàkk rek day bëgg a ñëw tëdd te xam nga foofu bu tëddee day bëgg nelaw yu neex nelaw yoo xam ne kenn du ko yàqal nelaw yoo xam ne yéen a ma gën a xam nelaw yi kon heure boobu tamit dañ koo war di préparer suñu bopp xam ngeen ni islaam dafa xeriñ xam nga heure boobu lu ñu fay def mën nga faa jàpp julli mën nga faa sangu su ko defee jàpp day nooy day sawaral yaram sangu tamit dafay sawaral yaram fekk yow sangu nga jàpp wala nga jàpp ñëw tëddaat ci wetam wéttali ko gis nga islaam na mu xereñe ñetti heure yooyu nañ koy fonk gis nga aaw ci fonkul gis ñaareel bu sa place ci man dara ummaa ko ci heure yooyu nañ koy fonk suñu paree ci loolu nag na yi comme ni ñu ko jàngalee góor dafa am euh, loo xamante ni moom la bëgg jigéen bu ko may rek dangay dem ba dañ ne dañ koy liggéey te loolu ñu islaam sant muy lan kàddoom taa bil maaruf góor dañ koy topp ci maaruf dañ koy topp ci teraanga waaye léeg-léeg ñuy topp góor ci lan malgré dama koy topp parce que kii dafa ma sonal kii dafa bëri service kii dafa bëri wax te fekk moom mooy sa kilifa xam nga loolu lan moo koy waral dañuy am yeneen occupation yoo xam ne moo ñuy gënal toppatoo suñuy borom kër nee naa whatsapp bii moom mi ngi yàq lu bari mi ngi defar de waaye mi ngi yàq lu bari koo gis mi ngi taal audio doo tal sax sa borom kër nekk ci audio yi rek soo gisee ñu bëri di raar li tax mu ñuy raar parce que boo ko toppee yenn topp yi da ngay dem ba li nga war def sa kër dafay manqué dëgg la benn wasila la boo xam ne dañ ciy jàng di ci xam di si jariñu mais da nga koy def deuxième def sa kër muy première comme ni ñu koy waxee whatsapp bokk na ci ay effet yi muy def mooy dafay soril li jege waaye jegeel li soril léeg sax sama classe bi da ngay ñëw di wax ak ñoom ñu la dégg ñi wax ak ki nekk ci whatsapp ba duñu sax tal seen borom seen waa kër waxuma laa ak seen borom kër kon góor li mu gën a bëgg mooy nga topp ko si teranga maaruuf topp ci teranga boobu nag mooy su la digalee nga def comme ni ñu ko waxee woon ci commencement bi te xam ngeen ni digal ñu ñu def ñun suñu warugar la ñun jigéen ñom dañu wara digal ñun ñi def parce que xam ngeen ni goor dafa am maqama bu reey ci jigéen maanaam moy kilifa am arrijaalu qawwamuna ala nisa. ndax lan bima faddala allah baadahum ala ba'd wa bima anfaqu ala amwalihim goor ñi ñoy kilifa jigéen ñi ñun mënu ñoo yem ak ñom ñoy suñu kilifa ndax lan ndax ñom dañu jël seen alal dépenser ko ci ñun door ñoo mëna tak ñu lew leen yalla mo def lolu ñun ñu ci dara ki nga xamante ne dafa jël alalam def ko ci yow même bu jëlul alal sax lu mu bon bon boo tax can moom dina ko joxe daal lay indi sa kër kooku sa kilifa la danga ko war a topp ci teraanga te gis nga olof yi dañuy wax lu am solo ku ñu lug sa jëkkër yekk sa doom léeg-léeg dañuy defe ni waxu olof la rek dañ koy sànni noonu waaye yaakaar naa mag ñi nga xam ne ñoo yàgg a sëy te jiitu fi ñoom ne dinañ koy wax te dinañ ciy teg seen bët ku fonk sa borom kër nga am doom joo xam ne ñëpp a koy fonk waaye ku fonkul sa boroom kër def ko moroom di am doom joo xam ne di nga bëgg ñu fonk kenn du ko fonk même bu dee teg si ñëwu ci waaye xam ngeen ni jigéen moom gàncax la te gàncax bu baax mooy jur bu baax mais ki nga xamante ne nii dafay def lu ko neex bu ko borom këram digalee mu bañ xanaa mu digal ko loo xam ne moom dafa tombeek mu nekk bànneexu bakkanam xam ngeen mbokk yi sëy jihaad la xam ngeen ni jihaad neexul jihaad ku ci dee foo jëm àjjana sëy bu rafet ku ci dee àjjana nga jëm ku ci dee àjjana nga jëm jihaad boobu nag léeg-léeg moom ngay jël jiital ko sa xol ba buñ la santee loo xam ne neexu la sax nga def ko ndax dangay xalaat ne man ci jihaad laa nekk buñ la waxee loo xam ne neexu la nga muñ ko te xam ne yow si jihaad nga nekk waaye xam nga lan moo gën a métti tontu tontonte ak sa borom kër tontonte ak sa borom kër góor bu demee ba nga xam ne yow sa kàddu bi nga gën a kawe kàddoom war nga xoolaat sa bopp góor toujours yow say kàddu nay gën a suufe kàddoom saa bu waxee lu mu la wax ne ko waaw donte kon sax neexul léeg-léeg ñu digal ñu loo xam ne du ñu neex léeg nga solu war a dem ci sa kër mbokk ñu ne la man de boo sañoon doo dem dangay toog nga boole la neex ak la naqari toog boobu ngay toog tiyaabale la si yàlla di bindal ndax xam ngeen ni jigéen du génn biir kër jëkkëram lu dul ndigalu borom këram ndax saa bu génnee malaaka ñu ngi koy rëbb bu muy dem ak bu muy ñibbisi moo tax ma ni topp gi dafay ànd ak topp goo xamante ne nii même bu fekkente ni ndax neexuñu mais dañ koy def ngir lan ngir topp borom bi te xam ne sëy boobu jihaad la waaye jaamu yàlla la beneen bi mooy mbokk yi nañu wàññi jàmbat bari na sëy yoo xam ne xam nga lu koy soofal même bu tasul jàmbat jàmbat dafay yokkatloo góor ki nga xam ne day jënd toujours day liggéey di sonn di ñëw di indi si biir kër gi mais toujours mi ngi dégg jàmbat waa ana muñ ñun damay wax ne ñun dañuy noos gis ngeen Fatima radiyallahu anha doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne bàyyi mooy gën ji mbindeef mu doon sëy ak Aliyun radiyallahu anhu karamallahu wajha nga xam ne musoo musta si jootal xërëm kooku xoolal ki ka seeq kan mooy yaayam Xadijatu bintu Xuwaylid nga xamne dafa bokk si jigéen wa aljana ñu gën ci wa aljana wala jigen bi gën ci jigen ñi koku moy yaayam yaayam moy ki nga xamne mo ñëk gëm yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam yaayam moy ki nga xamne yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam ba aisha fiire naka loy tuddu ci khadija xana du ben màggat rek dañ ko dedet ki du ben màggat rek de ki jigen la bo xamne moma moma gëm ba ñëpp weddee ki moy jigen bi nga xamne moma dimbalé ci alalam ba ñëpp xañee sen alal kii mooy jigéen bi nga xam ne si moom la ma yàlla may doom bi ma xañee doom si yeneen jigéen ñi kii mooy jigéen bi nga xam ne moom mooy ki nga xam ne moo ma yiir bi nga xamante ni ñëpp dañ maa boddi kooku mooy yaayu Fatima radiallahu anha yénent bi moom jarul ñuy dugg ci moom sallallahu alayhi na tiitar rek ñu ne ko yow yaay gën ji mbindéef doy na tiitar ñu ne ko yow yaa mottali yenent yi Fatima ba muy sëy xam nga lan la am bi muy sëy benn genre basang boo xam ne ci ay xobu tàndarma lañ ko ràbbe liif ak benn njaq ak benn machine boo xam ne moom lay walee sunguf si muy togge ak benn njegenaay ak benn mbàjj boo xam ne moo en ligne bu ñu ko sàngoo bu fekkee ci tànk yi lañuy sàngu seen baat day feeñ bu fekkee baat bi lañuy ñuy sàngu mu wàcc ci suuf seen tànk day feeñ mu sëy sëy bu rafet di togg di fóot di wal di root di fori ndéef ndéef yi ñuy kii si àll bi mooy neefere nag yi nga xam ne moom la toggee bu njëkk daf ko daan fori ci àll bi ñëw di ko toggee est-ce kooku ñun ñoo ko gën loolu lépp mu ànd ko ak lan ndax lan moo moo taxoon mu koy def sëy sëy ak borom këramte te yàlla tax ñun tey am nañu gaz robinet baa ngi ci biir kër gi ventilo yi ñu ngi ñuy upp feeru courant la ñuy paase ñi bari si ñun machine fóot la ñu am man kon lan moñu déssé té lool lépp and ak lool lépp mënu ñoo tok top borom kër yi ci terang xolal tay ji képp ku nekk ci ñun ñi ci ëpp am nañ mindaan yu leen di liggéeyal yow kan lan nga warona nekk sa yitte dëgg-dëgg to borom kër gi rek diko banéxal ndax ñoom seen banéx moy suñu banéx ñun té seen banéx ci lañu yalla di yërëme ginnaaw buñ ko jaamo ba paré tay lepp day matériel matériel da fay dafay dajaloo suñu kër yi ànd ak loolu lépp suñu kër yi neexul toujours histoire wax ju sew wóolante ndax lan te damay wax ni li si ëpp si jigéen ñi lay dellu ndax góor dafa nekk koo xam ni comme ni ñu ko waxee moo ñooñu yilif ki la yilif nag bàyyi ko kilifteef gi moom moo boromam la mais yow defal li la war te jigéen bu def li ko war borom këram même su fekkee deful lu ko war bu yàggee daf koy rus su yàggee daf koy rus kon nañu bayyi njambat bi kep ku xey talal sey cieur am luñu tek sa loxo te kep ku nek yakana lu mu néew na dinañ am luñu tek sa loxo bul jambat da fay waral mbañeel te xam nga sey am noy nooy doxee sa borom keur bu yagge mbeugel gi fay rous rousay bobu day def ba ngeen sapante ba ngeen sofante te yakana sey bu fekke da ngeen ko def ni lañ ko yalla sante du ngeen musa sofante ki ñuy jël exemple toujours mooy sang bi sallallahu alayhi wa sallam ba ni Xadija di génnee àdduna takkalu ko wujj benn ñaareel ba ba ni mu génnee àdduna dafay toppatoo ay mbokki Xadija dafay toppatoo ay mbokkam ndax lan Xadija mënoon naa yëg boppam ne yenent bi maa ko ëpp alal man si askan bu rëy laa bokk nangam ak nangam mais dafa boole alal ji taar bi askan bi lépp jébbal sang bi sallallahu alayhi wa te ñun loolu moo ñu war lépp lu ñu war a jël jébbal leen ko ñoom sang yi ndaxte góor nañ leen ni sang la xam naa ñu ngi guddal te li ñuy bind moom du fi mës du fi mun a xaj moo tax euh, njàmbat nañ koy wàññi beneen bi mooy nañu xam ni góor pour mu bëgg la pour mu sopp la lool wax dëgg yàlla yow yaa koy jëmbat ci moom comme ni ñu ko waxee woon nañu farlu ci yaram yi suñu yaram yi bu ñu lekkee ba suur naan ba màndi defe ne tëdd nelaw rek moo ci des su ko defee yenn sport yi ñu bàyyi ko te jigéen dangaa war a nekk xam nga jigéen fowukaay la te fowukaay dafa war a oyof fowukaay dafa war a oyof waaye ñun tey ku si jëlul poids rek dafa nga ni yow ko ci leen te jigéen dafa war a nekk koo xamante ni kuy toppatoo yaramam la même bu la yàlla bindee nga am yaram xam nga am na yoo xam ne bind la yàlla mënu ci dara mais yow nga toppatoo sa yaram nga nga toppatoo sa yaram bañ a gaaw a màggat waaye tey jii ñun bu ñu nekkee ay jànq macha allah dañuy solo toppatoo suñu yaram produit bu nekk dinañ ko ut defaru ba jekk di sport di waaxu di daw di ñëw waaye ku ci am benn doom wala ñaari doom bu ñu la gisee dootuñ la xàmme pour lan jigéen dafa war nekk koo xamante ni nii dafa war a nekk kii bànneexal borom këram ba keroog ngeen di màgget te xam ngeen ne xol moom du màgget waaye am ñaari doom ñetti doom bàyyili ko xelam nekk ci keneen keneen kooku tamit bu ñëwee def loolu xelam nekkaat ci keneen parce que góor noonu la ko yàlla bindee. kon nañuy fonk suñu yaram yi di xol li ñuy lekk aw baña wax nañu fi sank nañuy régime lek yu bax xol li ñuy naan waaye bëri lu ñuy yëngatu jigen so bëree li ngay yëngatu do gawa magat waye bu bu da nga tayel am benn doom ñaari doom dootoo takk sitien say wen wacc say tank wex foy dem ah man de moom kër gi rek la nek lima gëna met ci suñu jigen ni tay ci kër gi rek la nek soy sol soy genn nak nga sol ba melni ni waye bo nekk ci bir kër gi waye yow diw ah man de dawuma ma fenn ci kër gi rek la nekk te pourtant kër gi moy place solo bi bari na goor ño xam ñi ngi jënd ay duñ ko gis parce que xew nga koy sol genn dem so ñëwee lem ba mu jekk daal di dencaat am na góor ñoo xamuñu luy tagal duñ ko gis ci seeni soxna te lañ leen ko téré ci mbéd mi duñ ko gis te loolu dafa rafet am na ño ñoo xamuñu luy peñe karaw te sa karaw danga ko wara a toppatoo man señ bi dina gisé ak mom karaw gi gëna bari donc

ki nga war a gis nag moom daal ay mëgg rek lay gis su génnee ci mbedd mi sëgg du xool karaw yi nañ koy defar di ko raxas ba mu set di ko létt di ko coiffé di ci def ay per muy rafet parce que ñoom loolu lañ fi am ñun suñu leen ko wanul ñu gis ko ñoom dañuy perte xëy na yàlla dencal leen ko ci xóorul ay ni mais gis ko fii ci àdduna tamit si ki nga xam ne moo la lew dafa neex kon bopp yi nañ koy toppatoo col gi nay rafet ci biir kër gi dama ci insister ciol gi nay rafet ci bir kër gi nañ koy def mu nekk lo xamni day taru lol ndax euh, sey bi sanko roqay Souleymane wax nako ko bi jaamu yalla la gis nga bo ci sellalee sa yene tiyaba yu bare bare nga ci am mais ñu ëpp si ñun dañ koy def pour lan ñu yene yi soy genn dama naan man Sénégal ñom contraire la def Sénégal contraire la def bu ñuy genn sol lu gàtt sol lu dang sol lu yaraax suñu nekkee ci biir kër gi jël benn grand bu sol wala benn mëlfa wala benn mbubb bu ngand di diroo ko moom ci biir kër gi ne ci biir kër gi laa nekk te bi biir kër gi boo ci nekkee ci nga war a sol loolu bu fekkee amul muharram ci biir kër gi ci nga war waree sol lu gàtt lu yaraax lu lu rafet soo génn nga muur ko ba mu ba mu ba mu kii waaye ñun Sénégal boo xool ci mbedd mi li ñu waroon a nekkee ci biir kër gi waxuma sax si biir ëtt bi mais si biir néeg bi moom la ñuy génne yàlla nañ ci yàlla musal moo taxoon sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ni am na ay xeet yoo xam ni sama fa sama sama xeet la ñu bokk ñi ngi ñëw te man gisaguma leen te yooyu bokk nañ ci nisaa un kaasiyaatun aariyaat maa ilaatun mu muy laat ruusahunna ka asnimatil buxtil maa ila laa yadxulna al janna wala yajidna riixaha wa inna riixaha la yujad min masirati kaza wa kaza kaza yént bi salaa sallam mu ne am na ñaar yu ñëw sama xeet ñoo xam ni bi ñu si yitteel tey mooy ay jigéen ñoo xam ne dañuy bëri yére waaye dañuy rafle tey da ngay dugg ci njaganjaay wala ci car rapide yi nga gis xale bu jigéen boo xam ne day xëcc rek day xëcc rek ndeysaan naa ko wax benn xale bu jigéen ma ne ko bëri kersa mais bi nga bëree kersa da ngaa waroon sol lu wàcc waaye di xëcc rek bañ nit ñi gis yaa ni kaay leen xool ñëppay xool ñëppay xool mënoo ci dara yaa ko wane jigéen dafa war a nekk koo xam ni dafay am fulla ci boppam yi wara sol ci biir kër gi ñu sol ko ci biir kër gi suñuy génn ñu def ko ba mu jot te gis nga jigéen ju baax tey sëy dafa war a fiir ci yaramam dafa war a fiir ci boppam yow li sa borom kër war a gis nga nga jox ko waa mbedd mi yaag moom ñoo ko bokk di yaag moog waa mbedd mi ñoo la bokk li jigéen ñi war a gis ci biir li sa borom kër war gis ci biir néeg bi léegi fer ngeen baa nëbbootul xale yu góor dama leen di yërëm sax da ngay gis koo xam ah, mi ngi ko def ci si yére bi su sëggee muy feeñ loolu dafa ngeen di jàmm la ci réew ween yi boo waxee ñu ne doo daan yi aj ko tóoj ko ba ci kaw ba pare génn ko muy muy muy feeñ baat bi nekk ci biti loxo yi nekk ci biti yow loolu yaa sa boroom kër ak ñi si mbedd mi li leen uute bariwul de parce que ñoom moom bànneex bi muy am ci yow waa mbedd mi ñu ngi koy am ci yow te xam ngeen ni loolu moom bu amee ci réew réew moom pour mu naat pour mu naat pour mu neex pour xéewal yi wàcc fa dina jafe kon nañuy fonk yaram yi nañuy fonk li nga xam moy mooy gi ci biti waye nañuy fonk negbi. gi nga xamanteni mom mo nek ci bir bi ah fiñuy mujjel nak, moy mbokk yi place biñuy waxe waxee ak nakar ñu bari suñu xamuñu ko goor bu fekke dafa sol bay waji a wala sax buñuy jambaté wala buñuy wax soxla goor sol yéreem di waji genn liggey liggéey ko taxawal alaaji taxawal wala sëñ bi taxawal nangam ak nangam ak nangam kooku instant yooyu mi ngi yàkkamti mi nga war a dem liggéey yi mi nga am lu koy xaar ci biti su la gëddee wala mu yuuxu la yaa ko def sa bopp parce que góor dafa gaaw a énervé su wàccee di door a ñëw ci kër gi sonn egsi rek gaz bi jeex na ceeb bi jeex na diwlin bi sa tante ñëwoon na fi de nee na nangam ak nangam diw nee na nangam ak nangam xale bi dafa feebar léeg laa kooku dafay ane dafay facteur courant baa ngi nii wala bu ndox mi kooku dafay énervé kon ñu ne ban place lañu wara waxtane a sa borom kër boko soxla ak loo ko munti doyee bàyyi ko ba mu dal ba nelaw nelaw yu ñëk ba xelam dal nga yé ko ndank nga tok wax ak mom soko ñaané mu may la soko conseiller dina la dégg so waxé ak mom mu dégg la nga xam ni ngay waxé ak mom waye boko ko mu wala ne maa baat bi ndax dañ ni ray lu mu mayewul wokk ak xuri du ko mayé dañu wara nek ay seet ba faaw gis nga jigen ju mus day nek seet ba faaw lu ko koy may wax ju neex deg ndigal gis nga ñaar rek mo meuna mai may jigen mu nek seet ba faaw wax ju neex deg ndigal ndax sa borom kër bo xamee limu bëgg nga di def nga xam limu bañ nga di bayyi ndax jote dina am man nañu dina am de waye du bari ndax doomu adama doomu adama rek la su fekke xuloo ngeen même boko nga balu ko ak wax ma bu la de laaj ma dara ma toujours mu mere ma même boo ko tooñee yow même bu fekkee moom moo la tooñ kon moom bu fekkee moom moo la tooñ balu ko ah du la wàññi dara sang bi sama yaay dafay nettali benn soxna boo xam ni dafa am lu mu réeral ci kër gi te moom sax réeralu ko jëm moo ko réeral kooku nag aawa ah, la moom nag waaw bu baax mais bi nga xamante ni loolu am na boroom kër gi mer daal di ko ci xas ba saaga ko ndey bi ko borom kër gi saagaanee dafa dem jëndi tàngal ak guro bàyyi ba suuf sedd mu yow jox ko ne ko sëñ bi baal ma àq kooku ne ko ci lan mu ne ko saaga bi nga ma saaga bi nga ma koy def sa xol dafa tàng te bëgguma sa xol tàng xol leen boobu jigéen loolu yëpp ci xeetu jange la bokk tey duma dugg si jange gi tey moom ci kaw laay yem xam ngeen ni jigéen dafay muus beneen jigéen bi ñu leen di jox exemple dafa jënd ginaar xam naa jëkkër ji jóob la sant mu daal di koy togg ba mu neex yaayam daal dafay ñëw nuyu ko bi yaayam ñëwee mu daal tam damm ci benn ginaar bi benn pooj jox ko yaayam mu lekk bi jëkkër ji ñëwee na ko ana ginaar gi mu ñëw indi ko mu xool mu ne ko mais ginaar gi manqué na benn pooj xam nga njóobeen yi rek ni ñu mel mu ne ko manqué na benn pooj daal ne ceeg moom xuloo ceeg moom moom ñu mewu wax ne ko pooj bi sama yaay laa ko jox ba xuloo bi metti mu jóg mu ne ko damal toog seen kër ndax benn pooju ginaar soxna si dem toog seen kër ñu ne ko loo jotee sa borom kër mu ne feeg ñëwul ba fii jël si ma du ma wax lu ma jotee ak moom papa ji ak yaay ji wax ba sonn ñu woo borom kër gi borom kër gi nag ñu daal di koy woo mu ñëw ñu ne ko sa soxna ñëw na te dafa da ngeen a jotee léegi nag li ngeen jote lañ bëgg a xam lan la soxna si daan ni comme que ñëw na ba togg dinaa wax li ñu jote mooy ne damaa togg ginaar gi ba mu neex mu jox ma ne naa togg ginaar sama yaay jaar fa ma damm benn pooju ginaar jox ko sama yaay mu ñew mer neena lan motax jël luma ginaar gi yépp jox ko sama yaay lool da la ma méré na ma dama tok seen kër ñu ne ko ha mu ne waaw mu ne ñu ne ko tuubalal sa borom kër jëkkër ji fi mu toog boo ko doon sotti ndax wala nga koy kaatal du ko yëg jigéen day muus jigéen boo gisee islam na fen degan na diggante jëkkër ak jabar genre xikma yu mel nii moom moo tax waaye di xàppati ci digg ba ah man duma ko nëbb dara man lépp laay wax lu la ni mbilim la ci nga dem wax sa yaay wala sa papa wala say sœur sa sëy du neex mbokk yi ñu ngi jéggalu bëggoon nañoo dugg ci way yeeg taas yeek ñoom seen waaye dañ koy leb rek ba jamono beneen jamono incha allah di leen wax ni ñu ngi leen di balu àq li ngeen fi dégg muy lu jub ngeen xam ne ab simple seen moro mbokkum topp rek boo xam ne day jéem a fàttali konte ak yéen moo doon wax ak yéen lépp lu ngeen fi dégg muy lu euh, dëng ngeen xam ne doomu aadama moo doon wax ak yéen aqulu ma tasmaun wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu